saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa waa sunu lamb ak seen sunu lamb door dóor dóoraat ma jëloon ndam la ci atum 2018 daal di nañ koy nangu ca moom ban écurie moo ko nangu ñu ne écurie Yoff moo ñëw ren teg tànkam fa ko tay si nga tegoon teg tànkam fa ko dóor dóoraat tegoon journal ba xam le ne classement ba def nañ ko ba tëral premier ba écurie Yoff la deuxième ba tay si nga la troisième écurie Ndiaga la écurie Balla Gaye ñoom ñu nga glissé e place ba bu léegi 24e position la ñu jël bu dee Lansar ñu nga ca 33e position 37e plateau 39e écurie plateau boobee sax moo jël première alak maanaam moo mujjee ca classement ba moo tëj ràng journal ba rax ca dolli ne am na ñaar fukki écurie ak ñett yoo xam ne kenn classé leen la ko waral nag du leen lu dul critères yi nga xam ne sunu làmbu door bi laaj na ko écurie bu ci amul lu toll ci fukki combat jëm kaw doo ci bokk écurie bu yees la fukki combat du ñu la tabb ci bile trophée loolee moo tax écurie ma gën si gàmbaaw la cinquième écurie Bawol sixième écurie Ndakaaru septième Caaroy sur Mer huitième écurie Seex Mbaba neuvième Kay Baax Waalo onzième ba dañoo ex aequo foofu Abib Ndiaye ngay gis Thiès Mbooloo Père Diaw ak Papa Kane place ñu am Bosco Sow seizième Xamsa Cosaan dix-septième ñu am Jëf Soog nekk dix-huitième écurie Balla Gaye dix-neuvième Caaroy Mbooloo vingtième Dóor Songaan Gueye vingt-deuxième place Kër Massar Mbooloo vingt-troisième a nga nekk Fass vingt-quatrième rëbës 31e Pikine mbooloo 32e ba Malika mbooloo 33e Lansar 34e Grand Yoff mbooloo 35e Falaye Baldé 36e Bada Dione 37e Rock Énergie Bathie Seras jël 38e 39e ba écurie Plateau la journal ba xamle ne classement ba nii la demee sunu lambu doorub ren bi Yoff a ko moom journal ba rax ca dolli ne écurie Yoff boobee fukki combat la am ren victoire ñu nga toll ci 8 victoire 2 défaite la ñu am amuñu match nul amuñu sans verdict loolee moo waral écurie Yoff nekk ca bopp ba wutu dóor dóoraat ku wax écurie Yoff nag wax ndaanaan yow wax mbërëntaan yi tax écurie ba jël premier di Malick ñaadi móot ja Guinée ba ci bébé Birahim bu dee baytiir ndooy may président écrit la mu xamle mooy damaa kontaan la ko waral nag ñaari mbir la ba ci njëkk mooy jël gi sunu écrit jël sunu làmb doorte mu nekk sunu mbégte ko jël ci bi ma nekkee président ndax dañ maa tabb def ma président rek écrit ba jël trophée ba kon bu ma neexee man baytiir ndooy ma ne maa jik écrit bi maay seen sens maay seen porte bonheur bu ñu xuusaatee ca journal ba sunu làmb xamle na ne soox-soox wan na pakala lu mel ni musiba ca njurub moom gone googee ñuy wax Pape Ndiaye ñu gën koo xam ci soox-soox dimanche passé ca njurub la jàpp pakala bëre loo ko dominer ko daan ko moom sox sox dominer na champion d'Afrique ba pakala ba noppi daal di koy wàcce sur terre journal ba xam ne li yéem nañu lool ndax Pape Ndiaye dafa wone dëgg ne dafa mën a bëre bu dee Pape Morone mi nga xam ne ci Adrien Senghor saa yu yëg see quart de finale ñu wàcce ko xam na boppam léegi ba finale yi lay topp ci àll bi di noggatu gone yi keroog ca village ba ñuy wax mbaan fay nag bañ fa tegoon moo ko jël dimanche passé bokk na ci li soxal ñenn ci promoteur ya ñaari promoteur a ngay jiiroo ca ndab la ngir mën a décrocher ndax bëgg gunoo wone seen bopp waaye la am ba des mooy ñu nga ca ba xamle lool mooy ba nekk ca xelu Ibra Mbaye coach ci écurie Fass moom Ibra Mbaye mu ne combat bi ma jàpp ne dana neex mooy diggante Forza ak Garga ñaari gone yooyee ku taxawal seen combat def lu rëy Sidi Jaxate ne man borom Thiès de bëgg naa def lu rëy ren daal fi ma ma teg sama bët mooy sept journée wala huit journée man mi ñu dippee le promoteur de la capitale di raay man Sidi Jaxate juróom-ñaari journée laa bëgg jàpp juróom-ñetti journée fa ñuy jeexale mooy ca waa Amalda ñu jëm ci Adrien ñoom amicale des amateurs de lutte et toute discipline assimilée Amalda noppi nañ suba ci dimanche yi ñu nga ci Adrien Senghor million la tegal mbër ya ñu nar faa gis ay combat rëy séentu nañ fa ku ci mel ni Blindé Pakala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 set wicc leer nañ lii neexut wasaare lam wasare